jaa ngeen jëf rebonjour mii ngeen hashtag bi sunu net Facebook live YouTube live Instagram live jaajëfal nañ leen mairie nuyul téléspectateurs yeeg internet maa ngi leen di nuyu di la nuyu Ndiaye di nuyu euh, téléspectateurs yi nga xamante ne chaque fois dañ koy safoo di seetaan heure bi li xew ci biir internet ñëw na le dernier numéro de la semaine ñu ñëw euh, jukki leen li nga jukki leen li nga xamante ne ni moom moo fi jot euh, xew diggante démb ak tey li def sa bopp bi nu mu tudd lii nappi la karaw la waaw dañ ma doon laaj ndax greffage la ak ban greffage mais lii karaw la nappi la <laughs> Mhm. nappi. waaw temps yi dafa tàng. Mhm. waaw ma tayal a dem ba triangle de la war a léttu rek ma ne naa bàyyi bopp bi nii. nii la demee commentaire yi comme ni ngeen koy gisee ci euh, écran bi euh, internet yi dañuy interagir lu si bëri dañuy joxe seen xalaat. Mhm. wala di ñu partager yi leen xaw a jaaxal ci réseaux sociaux yi ñun ñu ngi fi pour mu gën a leer ñu njëkkee ak actualité démb. waaw li xew ce qui s'est passé fële. te euh, marche opposition bi mhm. euh, en tout cas amoon na forte mobilisation sénégalais yu bari génn. Mhm. doon ñaxtu li leen naqareeg ci doxalinu réew mi lu nekk lu am solo loo xamante ni suivre ngeen ko ci réseaux sociaux yi ci TikTok bi ci Instagram bi waaye li ci ñaaw mooy démb. Euh, ñun ñi jàllale nañ ko moment bi nga xam ne ñu ngi doon def émission suñu euh, confrère la naataango bi nekk fii euh, ñu ko doon yuuxoo foofu. Mhm. ñëpp ñaawlu ko nag gis nañ ni démb vraiment ci réseaux sociaux yi ñëpp doon ñaawlu lu ni mel bëgguñu ko gis ci genre événement yu ni mel ndaxte comme ni ko Déthié Fall waxee gars yi bu leen changé wala bu leen détourné ci combat yi. ku ci nekk dafa am solo nga am combat bi nga xamante moom la euh, na ko wax euh, démb bi ñuy commencé émission bi ci boppam la daal di affaire yi génn daal di ko génne won leen ko aussi. Mhm. Euh, gannaaw loolu la manifestation s'est bien passée parce que gis ngeen ko ci réseaux sociaux ku ci nekk posté nga sa photo wane nga ne nga yaa ngi woon ci opposition ci marche opposition bi donc Déthié dañ leen di dégtal Déthié Fall vidéo bi nga ne moom la wax ndax ne tromper de combat parce que journaliste ak lu mu mënti doon doon liggéeyam lay def donc déplacement la def ñëw ba foofu pour euh, daal di euh, def liggéeyam donc euh, ñu seetaan vidéo bi ñëwaat bi ñu yegsee dafa am benn journaliste bu TFM am incident bu fi am ñu bëgg déglu leen ma on ensemble déglu leen ma li ma bëgg wax li ma bëgg wax gis nga bi may nekk armée bi may nekk armée bi may nekk armée bi may nekk armée di def formation d'officier de réserve dañ ni il faut jamais se tromper de combat li gën a bon ci nit mooy tromper wu de combat suñu combat c'est avec le président Macky Sall suñu combat c'est avec Antoine Diome suñu combat c'est avec le Conseil constitutionnel voilà bu leen trompé wu ci combat loolu am na solo. moo tax mhm. ñu dégtal leen ko démb la woon ca marché ba ak li ci jot a xew yëpp gis naa waa SYNPICS do ñaawlu association journaliste yi itam di yëngatu di ñaawlu lu ni mel bëgguñu di ko gis. liberté de la presse dafa am solo rawatina euh, groupe Futurs Médias nekk groupe bu mag bu nga xamante ni liggéey bi da koy jaarale ci yoon. ci yoon yaay professionnel ñoo ko ñoo koy ci gannaaw loolu tamit am na leneen loo xamante ne nii dama ko bëgg a ñaawlu. parce que uh-huh. depuis euh, démb euh, ñu ngi may yónnee internautes ñu ngi may yónnee benn agression bu daal di am mariste. ci benn jigéen. mais balaa balaa balaa mariste mairie. Hmm. marché démb bi laa <laughs> gis desaat gis nga kii. benn internet moom ko envoyé léegi nii. Ndiaye faw daal nga tooñ si daal kii mooy mooy vidéo de démb marché bi ñëpp amoon na solo ah mais vidéo bi dama gis nii ñëpp ko partagé te comme que euh, émission bi c'est interactive dafa am benn internet bu ñu ko envoyé léegi am suñu réalisateur bu xam nga dafa connecté. saa si mu woon ñu ko baax nañu dégtal ko téléspectateurs yi démb la xewoon ci marché Bantia. Sénégal moo ñu ñor ceeb bi suukar si ak ak diwlin bi leneen ñor ñu ceebee ñu fi indi man laa damaa bëgg lekk. ceeb bi ak dawliñ bi ak suukar si man mooma fi indi leneen indi ma fi en tant que sénégalais xiif jamonoy ci si jël ceeb bi da daan bëri ba ñuy tuur ñamu maam léegi da ngaa gisati ñamu maam jigéen ñi daan sabaru seen tànk yi dëgëratuñu parce que lekkatuñu ñëpp a xiif on est fin on est fin ah la sant nag wax na ko ah donc Diobéen yi voilà comprendre ngeen ji démb moo doon def moo doon xeex xeex bi démb ci combat bi ceeb bi rek. ko indi kii rek moo am fulla non kii nag moo am fulla. nee jigéen ñi daan la vraie marché ngi nii. <laughs> jigéen ñi daan fecc seen tànk yi dëgërutul ci bëri njamu mbaam amatul njamu amatul mboolu dof sax amatul. mais vidéo bi en tout cas internet bi ñu ko envoyé ji ko jaajëfal. <laughs> neexaloon na démb marché bi ndax gis naa ni eh, ñëpp a ngi koy partagé nii lay demee ah ci réseaux sociaux yi. internet mhm. parfois nga dugg TikTok gis lu la reetaan lu yow kese nga nekk xool sa téléphone reetaan ba sëgg mais ça fait du bien quand même. ndax di nga am vraiment euh, xol bu neex. parfois donte jafe-jafe yi bari na ah, comme ni mu ko waxee. Mhm. mais ni mu ko waxee peut-être dina dugg ci nopp yi ñi nga xam ne autorité yi lépp cher voilà ci loolu la ñu mais sànq yaa ngi doon wax Maris. waaw benn euh, agression boo xamante ne c'est une jeune femme ah. qui a mhm. été agressée fële ca Mariste. Mhm. te lii lii euh, euh, particulier ci agression bi c'est que agresseur bi da ko topp mu jóge banque. mu topp ko bëgg ko génne de force ci otoom jël oto bi bëgg a daw ak moom mais heureusement lay wax ñi nga xamante ne ñoo dëkk Maris jàppale nañ ku jigéen ki ni ngeen koy gis nii si ci vidéo bi. donc euh, par contre information. image par contre euh, information bi ñu doon jàllale depuis démb mooy que ne dañ koo rey. Mhm. mais euh, il faut dañ ko vérifier et il n'est pas mort dañ ko lynché mais il n'est pas mort. mi ngi hôpital mhm. mais donc juste pour voilà pour pour attirer encore attention ni ñu def leen attention parce que léegi nekkatul dañ lay këf. Mhm. parce que lii quand même c'est c'est un pas de plus en fait dans l'insécurité topp nit ki mu joge banque dem ci oto otoom xëcc ko de force génne ko ne ko doo dugg ci oto bi ba bëri sàcc oto bi. pour jël lu mu yóbbaale bëgg a daw ak moom. heureusement population voilà ñu détee la vigilance de des de Mariste ñu leen di jaajëfal au passage euh, kon naroon na rëcc ak oto bi. wala ci TikTok damay gis ñu naan euh, lynché nañ ko maanaam rey nañu agresseur bi. Mhm. donc baax nañu préciser que ni deewul. deewul yóbbu hôpital. Mhm. fi mu ne nii euh, takk der yi di ko suivre di ko bàyyi xel. Euh, ngir euh, bu jógee ci ñu mën a loxo teg ko ñu teg ko loxo lu am solo la waaye baax na tamit ñu alerté ci mbirum insécurité bi na ku nee di jël say matuwaay ci mbirum sécurité mais surtout bu leen fàttee numéro téléphone gendarmerie bi 1 2 3 1 2 3 waaw. ngi fi disponible. waaw ah, très rapidement te boo leen woo ñu lay ñu lay jël nga wax. sa situation démb. Mhm. d'ailleurs ñoom ña nga fa woon ak pompier yi. bu ci jógee am na leneen lu may gis démb ñëpp di ko dugal statut. mais il ñu vérifier waat xoolaat. waaw toujours taxi bi damay gis ñëpp di ko affiché naan waa ji day jaay. Euh, ay ay clients am en fait toujours si insécurité bi la c'est-à-dire maintenant ak insécurité bi nu mu yéegee. Mhm. les gens deviennent parano. Mhm. donc nañu moytu aussi balaa ñoo tooñ euh, jàmbur ndaxte taxi bi nit ñi ñu ngi partagé plaque d'immatriculation ne attention def leen nànk que euh, dafay daal di jaay ay clients ay agresseurs. mais jaay ay clients mooy. maanaam xam naa rek day complot ak ay agresseur ne leen su ma ah, yebee client bu leen demee ba nii ngeen arrêté xam nga agressé daal noonu lañ ko mën a comprendre jaay bopp donc il y aussi euh, benn commentaire boo xamante ne benn internaute def na ko di indi ay éclaircissement mhm. ci loolu ndax nee na ne euh, li kii nii nga xamante ne moom moom moom euh, oto bi dem na ba ci police ak gendarmerie présenté wu daal di ne moom il est totalement étranger maanaam li ñu koy jiiñ du moom waaw borom taxi bi ñuy oh. euh, jàpp di euh, euh, partager plaque d'immatriculation moom dem na ba ci police ak gendarmerie daal di ne li ñu koy jiñ ci réseaux sociaux yi du moom. pour setal deram en fait. ok dem na ba ci gendarmerie. voilà. ok dama ko yàgg gis ah du du woon du woon démb. Mhm. démb la gën a dañ ko gën a partagé mais yàgg naa ko gis depuis semaine passée mi ngi jàll. depuis semaine passée mi ngi jàll. ñu def ndànk. Mhm. surtout balaa ñoo partagé toujours loolu ci partagé la. Mhm. bu wéree information wéree bu nekkee vrai c' bien ñu partager dénoncer. Mhm. mais si c' est parfois dafa am ay doute remonter leen toujours ci source yi xool ba xam mais comme ni internet bi def baax na am na ku ñu envoyé ne taximan ti luy di mbaaw 2000 mu ne lan. 2500. il dit non 2500 et il quitte devant toi. pour aller à Mbao avec taxi maanaam day bañ romb la romb bañ 2000 yi mais daw dem ba daw dem ba Mbao. ah eh bi ñoom lay ne la wax nga dëgg de 2000. 2500 taxi tamit cher na de. non fu mu ne nii lépp cher man comprendre tuma daal lépp cher. doy na ci cherté boobu sax d'ailleurs si lay pëtëxal. Mhm. daal di la wax benn phénomène. ci ngay buruxlu waaw daal di la wax benn phénomène boo xamante ne nii instant bi commencé na jël ampleur. Mhm. mooy la phénomène des vide dressing. vide dressing moom la ñuy wax. vidé vidé waaw vidé vidé ci Facebook bi xam ngeen da ngeen di gis façon groupe bu ne. Mhm. mais am na ay groupe yoo xamante ne nii euh, yére bi nga sol. da koy jaay. ci biir groupe bi maanaam wàññee wàññi ko daal boo ko jëndee woon 100000 nga jaayee ko 25000 wala 50000. sànq élage mi la wax ni yàgg na fi effectivement mhm. mais jamonoy réseaux sociaux yi tax na yi da ngay gis dimanche bu ne wala ko am xew rek daal vidé leen ma lii ah, euh, solo la phénomène bu nga xamante gis nañ ko mhm. euh, est am na ay ndaw yi ñu jigéen ñu ci wax loolu waaw euh, daal dinañ dem seeti ki nga xamante ne moo di Samira wa Wardini mhm. pour bañ a juum ci tur bi donc moom mooy adminu vide dressing bi nga xamante ne moo nekk ci biir Facebook donc te moom moo créé groupe bi waxtaan neex boroom kër ñu daal di dem euh, dégg ko euh, suñu micro mu daal di ñu wax lu tax mu créé euh, groupe boobu ak naka lay demee affaire yi si ñu déglu ko ñëwaat. jërëjëf. waaw bi ni gën ma xamee ci turu Kenza Rasoul alors maa ngi créé groupe vide dressing good bi nga xamante ne bokk na ci groupe yi ñu njëkk créé fii ci wàllum vide dressing donc vide dressing mooy tey jii nii. nga am loo ay bagage mu doon yére mu doon dàll mu doon euh, greffage mu doon yére xew yoo xamante ni soxlaatoo ko wala benn yoon nga ko utiliser mu nekk qualité bu baax nga baaxee ko sa ay yeneen mbokk jigéen à des prix très réduit maanaam ay njëg yu xéwale comme ça ñoom tey jii nii dinañ mën a sañse mën a mën ko jëfandikoo ci ay njëg yu xéewale alors bi ñuy créé groupe bi c'était dans cette optique la gis nañ ni que léegi de jaajëf Samira explication bi leer na lii mairie wax la ñëw yi am na mhm. solo ndaxte ku ci nekk fi mu ne nii eh, moom baa greffage am jëlee ko ci vidéo kii deful greffage mèche la def yow lu ma ci xam dafa rafet moom macha allah. <laughs> na macha allah. Mhm. Mhm. baax na. acca kii moom ko moom ko mi nekk ci ginnaaw moom mooy moom mooy. nel petit na yeeg eh ah. baax na. mani ah. am na ñoo xamante ni bu ñu toppee vide vide dressing bii. Ah. Euh, du ñu amati yéene de. jamono neexul da ngay xëy banque. dëgg la de nga war a dem liggéeye sax da nga koy simbi jaay ko. dëgg la de. vidé vidé bi c'est pas pour nous de parce que dëkk bi amul xaalis de ñoo banque de. yaa Pape yàlla boo vidé fekk li nga vidé fàtte nga ci xaalis ci biir. vidé vidé bi bu ma ko toppee de je pense que je vais venir travailler nu ah. oui. ah parce que jamono neexul. jamono neexul moom. mais bon c'est un bon c'est un bon truc. c'est un bon truc. Mm-hmm. Mm-hmm. allez continuer dama am na solo da nga ciy da mais voilà continuer jaa ñuy ñuy continuer di jaajëfal jiili CSB moom mi nga xamante ne aussi moo ñuy jox ci loo yi jiili CSB numéro téléphone am moo nekk noonu. 33 822 47 00 75 441 34 34 jaajëfal jiili am na boutique Colobane Gueule Tapée. Mm-hmm. ak rond point cité Kër Gorgui euh, tey mairie spéciale. spécialement dafa choisir ci internet yi ah. man nag sama benn mère yaayu yaxara daf ñuy suivre nag nee na moom dawlul am jot dafa nekkoon congé. Mhm. Eh, mais temps yi daal nee na ci émission bi lay wétali ko midi plus enchaîné ak lii réponse baa ngi nii nee na moom ci boppam trouvé na ko. waaw mais xamul Facebook ak xamul yooyu WhatsApp rek la xam. waaw ñu bëri daal dinañ trouvé ki nga xamante moom moo di Cheikh Maay Ibrahima Niass. Euh, mhm. bu yàggul dara moom moo fi demoon fële ca Darfour doxali mission de paix bi réussir ko mu nekk ndamu Afrique waaye ndamu Sénégal. Mhm. donc wax trouvé nañ ko. Mhm. mais ki ñu tànn euh, mooy euh, Medoune Mbaye si je ne m'abuse voilà Medoune mbay moom la ñu tànn euh, ci parmi ñi nga xamante ne ñëpp ñoom ñoo ko trouvé donc Medoune mbay am nga fi cadeau fii de la part de Jili CSB. mi ngi noonu voilà. sa saaga ngi noonu. bu ñëwee jël ci loo waa léegi. damay préciser waale suñu suñu gagnant yi jarul ngeen may woo directement léegi da ngeen di ñëw rek yéen ba ci télé bi rek dañuy waxante ci suuf après dinañ leen wax kañ ngeen di ñëw ak ban heure su ko defee ñu ñëw defal leen remise de l'eau defal leen photo bu nice su ko defee ñu jàllale ko ci émission suñu benn yaay de Adja Marème depuis mhm. Havre mhm. moom bëggoon na ci gagnant yi de xanaa mu ñu jox ko rek mairie choisir moom moom mairie moo choisir mais incha allah dinaa ko jox ci loo yi amul benn problème jox ko ci loo yi amul image kasa bu bees baa ngi nii am ngeen jeudi vendredi samedi dimanche. ah bi xaw na yomb nag waa ñu ñëwaat ak hashtag bi sunu net Facebook live YouTube live Instagram live wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image boobu euh, mu nekk lu am solo loo xam ne da leen ni voilà. possibilité même bu émission bi jeexee ngeen continuer di commentaire. waaw ñu continuer di commentaire da bëgg a souffler kii nekk ci ginnaaw image non non non bëgguma ko souffler man kay dama doon dama sama xel dafa nekkoon ci ñi nga xamante dañuy faral di jaay ay compte TikTok. mais dafa xew léegi. compte Instagram. dafa jaayum compte Facebook. dafa jar est-ce que duñ ko bàyyi ba lundi. waaw dañ ko bàyyi ba lundi. dañ ko bàyyi ba lundi ñu am ñu ngi ci waxtaanal. ñu ñu waxtaan ci dafa bu baax xool ndax loolu c'est légalement est-ce que euh, loi amul dara lu mu ci wax aussi. wax nga dëgg de ñu ngi doon ñu ngi doon wax sànq léegi ci vidé. mbirum vidé yére compte yi sax dañ koy vidé léegi waaw. léegi bu ñu waxaatee ci jaayum compte bi nga xam ne dafa xew fi mu ne. Mhm. ku ci am ay abonné yu bari rek. jaay ko daal di koy jaay. jaay léegi mu nekk loo xamante ni vraiment fi mu ne nii dafa xew ah. Mhm. Euh, mais amul problème nañ bàyyi ba lënd ñu gën ko ah, yaatal. lënd ñu gën si dugg gën ko gën ko expliquer. waaw euh, Baye dama ko bëgg a wax ne ko internet yi ñu ngi. ñi ngi ñi ngi ñi ngi commentaire keroog dafa ne dafay maye ci billet Youssou Ndour ñoo ko rappelé waaw waaw am na ñu mhm. def appel def seen capture comme ni nga ko digle woon daal di koy partagé ok je pense pas Pape Samba bu ok mën na ko woon quelque voilà comme nii ah. voilà je te laisse le soin parfois nga choisir wala balaa émission bay jeex nga xool ci ñaar rek wala ñenn ñett joxe jox ci billet Youssou Ndour yi. y' a pas de souci y' a pas de souci y' a pas de mhm. dans quelques instants. voilà bari ci ñi ñi ñuy euh, woote de. di émission bi ba émission tàmbalee ba léegi ñu ngi woote ñoom tamit di wax ni kii def na 8 minutes kii def na 16 minutes. Mhm. ok. voilà Alors, je je transfère toutes ces informations euh, aux équipes euh, service à valeur ajoutée tout de suite. Mhm. et puis ñoom euh, dinañu ma balancer appel bi xam nga lépp dañ koy teg ci yoon et puis moi je je des invitations pour bal suba bi. Euh, uh-huh. am naa fi ay tickets. Uh-huh. et j'offre tout de suite euh, damay jël léegi nii téléspectateur. Uh-huh. mu tànn région lu mu fa fekk ci xaalis ñu yónnee ko ko Orange Money. voilà jaajëf. merci. merci merci à toi Pape. à lundi. incha allah à lundi incha allah kon Diouf ba lundi ah. waaw ba lundi Baye. merci Mamadou. merci beaucoup jaajëf waay. jaajëf tey moo nekkoon seen dernier jour pour semaine bi bon week-end à vous. Merci. bon week-end à toi aussi. Ciao. et repose-toi